Hein, comme mon frère fait là, mon, Mohamed Diallo aux États-Unis. Il est très positif, il est très suivi parce que les gens qui ont nañu gëm leen seen Donc je reviens encore sur le test des Covid-19 là Barou santul beaucoup bu ko kenn nangu waaw. ndeysaan borom xel yi ñooy di plus positif voilà le peuple reste souverain c'est-à-dire que l'élite là cette élite soi-disant élite là ñoo leen fal bu ñu fàtte à la seule différence qu'ils ont l'instrument qui font que da tenir dañ xaw opprimer quoi maanaam di la dire mon app. oui <laughs> merci Job Dollar il ne ndeysaan donc xam nga boo nekkee ci un high level doo mun beaucoup ak ñi nekk dors dox quoi parce que tu es c'est comme un aigle hein. quand il vole au-dessus c'est compliqué effort de muy def pour wàccaat pour c'est une perte de temps donc nous comprenons bien que ne parlons pas de droite, parce que nous avons wàcc di wax basique il est tellement informé Tu as vu là il me donne l'information que je en Allemagne c'est un peu partout hein. les arrestations pédosatanistes là Nous, ngi leen de tout bord mais <laughs> le Sénégal avec ses ci le tour de l'Afrique va va pas tarder hein. parce que il y a ce qu'on appelle les gendarmes du monde Amérique moi, <laughs> qui ko moi, ils Trump donc nous sommes nekk di nous parce que nous avons dit bonjour mon grand Badji un respect beaucoup de choses vont se stabiliser c'est certain donc nous, man ñi ci xam je suis ci bu donc nous tax ku ci nekk da nga gendarme sans soutenu. da militaire sans gendarme de l'humanité gendarme yàlla parce que tu es un agent, tu es un homme, tu, tu, tu, tu es une personne. Donc, voilà, veille veiller à la vie saine de ton prochain. waroo toog rek di xoolee mel ni benn picc buy naaw xam nga picc buy naaw du am trajectoire dama koy wax tout le temps parce que picc day def lu ko neex amul dara lu koy contrarier day yeewu jaamu yàlla sabal picc picc yi day sabal boroom <coughs> le fait que ñu def bruit boobu dañuy sabal dañuy sant yàlla Da nga ko ci def rek moy sa wacc jox sa sa sa sa sa maanaam sa liggéey jeex na quoi journée bobu

Nous non volontairement parce que nous avons une population dense qui migrer di donc nous, sommes nous leen aussi c'est un plus par rapport à cet objectif comme nous, ñi dematuñu te du pour les frontières yi terres comme aérien nous avons imposé des tests. en Europe le coût est moindre qu'en Afrique hmm? Europe peut-être 10 euros là, 20 euros mais filles en Afrique, vous imaginez 40 000, c'est presque 60 hmm, euros. Bah, par imposé, imposé sous prétexte que. <laughs> Non, mais attends. Nous fait pour, nous fait pour le They are ready to kill us. Me, I'm not ready to die for, for by this way. <clears throat> Faut pas avoir peur de la mort, parce qu'on meurt tous les jours. À chaque fois qu'on dort, <laughs> c'est la mort le réveil représente la résurrection Je koy def sama statut pour que nit ñi pourtant dama koy bien avant may def statut donc dès que ragal dès mooy dellu sa borom <laughs> pourquoi avoir peur de la mort mais mourir dignement moo mourir n'importe comment alors ni ils vont nous tuer n'importe comment faut pas qu'on l'accepte la vie est tellement sacrée que chacun a le droit de le préserver c'est-à-dire que dans le sa life voilà ONG yi fi nekkoon di tëb di dal yëpp di en cachette Arrêtez nañ programme parce que xam ils sont sous menace dafa grave..! rek da ngay xam quoi da ngay xam ñoom ñëpp teg nañ programme qui ci mais non mais je comprends <laughs> bëri nga ci morom de <laughs> Diop mais le reste, ils sont là, les Moi, j'ai dit, ils n'ont rien compris là. Leur vie est menacée, ils n'ont qui m'ont là. Macky Sall jaxana ngeen di tok di wax ci li nga xamné c'est pas essentiel Darou Diallo tout man dama yow yag na quoi motax dewma fenn je ne fais que mon boulot après je m'occupe de ma vie parce que dañu ci wérante lañ nak quoi motax ñu nek fi ñu nek ni bu ñu amone fula Sénégal rom na fi mais dañu tok di wérante da ngay nek di gëssu ku xamul dara bëgg si ak yow amul sens dafa mel ni nga dem ne ak ku jàngul man yow nga ak man it's like that <laughs> gëstu maa ngi may nit ki mu ngi li may jaral jarul la du dal na ma vendredi ne bon grand bi je vais t'expliquer un peu si tu veux m'écouter tu m'écoutes je t'explique mu ne vas-y développe je ma génne ñaari mu ko j'ai pas le temps ko ma ma nature me l'interdit tu sais, quand tu es. En fait, quand tu te documentes sur une chose, tu as une ben clarté avec une vision gis life bi concordance par rapport à ça Ben, job dollar job nek fële Tu as werante yow te amu ci knowledge ben, amu savoir <laughs> c'est compliqué vous comprenez un peu fi c'est comme gardien bi taxaw goudi di

C'est la fusée de tout bord nous ne pouvons pas C'est un autre rek Nous, fidèle bonjour Nassir Nous rek ñu ngi pédophilie partout mais Sénégal duñ parce que télé yi duñ ko wax c'est-à-dire que le social network là nous parce que

moo ñom fi tuddi di wax <laughs> Macron moy moy pédophile bu mag bi déggoo man naan le petit PD la man man su ma su ma ko jox cër seetaan la tuuti rek ah du japp nañu pap bi dinañ japp keneen ku gëna a Macron pap bi il est sous résidence surveillée non ak kan encore ñi fi influent yépp ñu ngi leen di japp kenn moo influent mooy mam yàlla amul leneen kuy jaamu na nga topp sa borom mais leneen loo jaamu après day fin ak croyance boo mën a am bu ko nëbb boo dee juif na wane na juif nga boo dee musulman wane na musulman nga boo chrétien wane ko amul nëbb xam nga damay def suma live benn grand naan ay ta religion il faut le cacher moi je suis un bon musulman je m'en cache pas I'm a real muslim proud to be tout le temps rek dañuy jéem a déjouer ku nekk na nga taking care about your life respecter ton prochain c'est important que personne ne décide pour l'autre mais tu as le droit de dire, de, dire et de donner ton, ton, ton aval et ton point de vue par rapport. Tu es un citoyen du monde. Mais lorsque nous borom de fait, non, tu as le droit de dire que personne ne décide à ta place. Moi, dans le dialogue, je ne permets à personne de parler pour moi. Moi, ce que je dis là, c'est pour moi d'abord et pour ceux, qui, qui, à, qui, à qui ça intéresse. Voilà, si tu n'es pas <laughs> intéressé, tu quittes le live, tu vas faire autre chose.

wara lu mu dax jaxasoo bi nit ku dudd ba am at mu am ñu naan ko waaye bul defel lii man sama papa sax musuma wax defel li <laughs> dafa ma teel a bàyyi free loi même dama teel nek nekk responsable bi may nek boy bientôt j'aurai 50 ans là je suis pas un môme hein. et après on te dit fais ceci fais cela <laughs> man buñ ma joxone aduna mën naa ko tey wol li da parce que xamna naa ma tuxu ma mandiwu ma je suis très lucide très lucide de bu ma bëggee mandi ndox laay naan mandi natural high we don't need to take drugs or alcohol to become drunken. No. You can be drunken without taking any drugs. Yalla la mandé quoi la fess Yalla yàlla fess dal suñu kaw té duñ ko neub parce que mo fi nek. we understood tax neub sa religion ça c'est lolu moy nafiq yaa nafiq <laughs> def li tranché non il faut être constant man bi may nek di rakaaju je ne priais pas I don't give a shit pas prime un jour là, julli mooy Friday man donc maanaam extrémiste c'est des mots qu'ils ont créés c'est pas un extrémiste c'est quelqu'un qui est engagé qui assume ce qu'il fait <laughs> voilà c'est comme le légionnaire il est payé en conséquence bu mission jotee dañ ko va exécuter donc cible moi, mu dem wàccee Daouda après wat dëkkam that's it it's like that kooku extrémiste ko pourtant il est en mission il a été payé pour ça Il a ba heure pour jot ñu a non dama nga def exécution mu dem exécution that's it the rest one he doesn't mind man pour vous dire que ni ma 17 ans arrêtez là tout le temps ils veulent décider à ta place parce que sama bi ma Je sax <laughs> <laughs> come I love my mom but the am boundary manam ku nek da même ma fille bi mu man limite je ma ko impose dara c'est-à-dire que cette autorité parentale là je ne ko exécuter ci filles, mais fii ñu dañuy ah, non non moi kenn je ne ko pas. » rek point barre mais mën nga nekk gaayadam bu bëggee jur nga non attention c'est comme ngeen baal ma ci kàddu gi l'aveugle le blind il n'est pas blind ah il voit pas avec tes yeux mais il voit avec son cœur te boobu vision C'est ëpp doole bi ngay blind by eyes you take by dangay ngay kanam diko di ko xaw jégil mais limuy gis yow do gis men légui kooku non dang koy assister pour mu dem def leer par rapport danger bi courir parce que drivers yi ñu ci bari wëruñu day am mental légui ñooñu bo jappé ki xaw am problème mu vision nga koy jégil tu penses que dang koy jégil non <laughs> dafa doy war quoi motax tax Macky Sall duñu mal mané ni no respect à l'égard de la population qui lui a élu. Non, Capitaine Jay, c'est n'importe quoi. Hein. Moi, il m'a dessus. Hein. C'est vrai, hein, j'ai jamais été. Euh, c'est-à-dire que même période ils ont fait sortir, je ne sais pas s'ils sont sortis ou bien ils ont été préparés de la sorte. C'est-à-dire que l'administration sénégalaise a une hein, des secteurs différents, viennent taxaw di wax. comprendre non attention warning, this is something

l'avocat tu lui prends pour que nous défendre l'ordre de maîtriser mais man li may défendre dama Alors maîtriser est tout à là, sur pas mal de choses parce que le juge il est censé être hein, des déglu un bon sens common sense common sense Moi, c'est voilà pour tout le monde ça c'est le bon sens qui parle au-delà de toute aspiration politico-religieuse il y a le common sense parce que la partage c'est un âne je ne sais pas jaamu mais da ngay respecté parce que loolu la gëm mais fii un problème hi frère euh, sister good morning fii un problème on n'a pas le respect de hein, de son vis-à-vis tout le temps je veux décider à la place de Job Dollar sans que Job Dollar m'ait demandé mon avis alors ça c'est un problème <laughs> yeah. we will leave you too. Osman, Someone dia my mom is drama like you. <laughs> hmm? <laughs> I was following you so many times because your, your words is so strengthful. fii borom xel you ñooy c'est-à-dire que syn symbiose boobu yàlla moo koy def quoi ñii ngi Japon dañuy déglu ni Sénégal ñii ngi Kuala Lumpur dañuy déglu parce que we on the straight way Number you definitely lu What waxuñu you born? <laughs> we open those people's eyes because so many people are sleeping ñun kenn we gonna on that day we don't even scare I'm a lawyer, i ko def looy ragal rek in life bu ko def <laughs> thanks thanks uncle uncle buy my mom because my mom have the same name like you, Drame. But Drame from Mali, yeah? Zico, good morning. parce que ñëpp yeewu nañu Sénégal rek ñu fi nekk amuñu dara xamuñu dara ñu nelaw rek Té am nañ lépp assis sur le l'or du zircon du diamant on a tout ce qu'il faut le soleil la mer des terres inexploitables et on continue à dormir après on dit on est pauvre mais ñoo xëcc pauvreté suñu parce qu'on a tout ce qu'il faut là pour sortir de, <laughs> de cette vie euh, hein, de débauche. Rien mais quoi. On préfère vivre dans le dénuement. Pour vous le confirmer, Samba Daouda, si vous avez ben Samba di de quoi dem di liguey quoi. That's crazy. Daouda Samba warul jog quoi. Daouda mais lu tax Daouda soxor. <laughs> On doit se poser cette question, lu tax Daouda soxor. Soxor for what? hein <coughs> yeah. Soxor without no reason. Di pauvre di di ils hein, Ah ngay gagne sa xol. <coughs> du mer da ngay da ngay grincher parce que moi moi deug da nga am droit grincher quand quelqu'un grinche c'est parce qu'il n'est pas content de de ce qui se passe. Mais quand tu le dis, tu dis, ils te disent non, non, non, ah, non, pour la, non, mon grave. Parce que quand tu dis rien constant, tu es celui qui ne dit rien constant. Là, on essaie de dire des choses claires. Hein. Tu sais, il se passe beaucoup de choses dans la vie que les Sénégalais ignorent, en fait, parce qu'ils passent leur temps à sur des télé télés. En fait, nous sommes conscients. Hein, parce que quelqu'un qui mu naan mais je dis il faut l'atteindre et puis fais de sorte que tes enfants toog di c'est seen la culture générale Quand ça, c'est-à-dire que amatuñ parce que ils ont fait de sorte que nous dof mais ils ont ñun suñu temps ils dañuy toog di wax kan moo gën a ça, kan moo ça, culture générale mais la culture générale zéro Quand xamul dara ça wax ça après day ça. parce que ay mur ay mur mais transparence bonjour Khadiata j'ai beaucoup de sœurs là Khadiata je bëri la ma wife is Khadiata aussi. <laughs> elles sont sacrées les Khadiata comprends, comprendre ne sortons pas mais Khadiata Sénégal je vous l'assure Je hein. vous encore Zico. You know, African people, most of them prefer to spend time on the bloody things, watching TV, or hearing music, you know. <laughs> I, don't, I don't understand. I really would like to understand. cest American peoples, the dream American peoples, you enjoy. Mais you, you the pay peoples on mine. I'm alright to Madame, tu to chilling out yeah they don't they refuse to work first if they are working <laughs> they're not doing well Madame, dañu sincère quoi quand tu n'es pas sincère dans ton boulot comment est-ce que tu pourrais vivre décemment après ne bëgg pas ce salaire halal même bon tardé Hein <laughs> Ouais, ouais, capitaine il fait partie de, cette élite. Hein. Il est là, il est en mission là. Ils l'ont envoyé pour qu'il vienne divertir aussi. Donc, cette bonne guerre, il ne faut même pas l'écouter. Diarou partage. C'est-à-dire que le on est lui lu yàq rek partage Donc Il koy Il nga a 30 jours de jot ay man yu beuri du ko partager parce que dama nañu bloqué suñu xelu nit ñi quoi ils nous divertissent dama lay bloqué 30 jours du ma jot sa notification li ñu war a partager mooy li jiyeete ak li ñuy jëlee kam kanam maanaam boo ma jëlee di ma fay salaire you have to be honest first with yourself before going working ñu lay fay ci dois commencer a huit heures donc sept heures quarante cinq war na la fekk foofu quinze minutes before you start the work boo wàccee seize heures boo fa dépassé time spending time la mais bul wàcc avant seize heures do well your work comme ça li ñu lay fay ah sa maintenu maintenu rent nekk lu xalaal c'est vrai c'est très important Les plus liggéey ci àdduna fexeel mu halal, c'est important mais boo ko deful rek mooy yaa ngi tamit yaa beaucoup de ci des def détournement oui <coughs> capitaine bi dafa nekk en mission bu leen bu mu leen jaaxal ah dina am keneen ñëwaat pour divertir parce que man nee naa la bu ñuy mere sociologie sociologue yi conseil Macky Sall dafa lii ak laa man nañ parce que j'ai compris il n'est pas si intelligent à ce point mais c'est ces gens-là, cachés dans l'ombre, qui lui disent on fait tel, on fait tel, parce que nous dañ jang sociologie humaine. Té ku nek lire la pensée d'autrui, de ton prochain là, dang ko wara jang, ku nek Mais il faut moins intéresser là. Dem Israël dañ def furé né dootuñ tax masque Canada pareil, ñun fi ñu ñëpp tax masque comme une ninja. Ça me fait marrer un moment mais après je suis j'en ai ras le bol quoi. Ya ngi xent oxygène bi wara

man serigne bu moderne la man du ma fayeku ma I'm sharing the knowledge because Allah sending me ay ñëw ñu lay ku jëgo bëgg sa problème bo yéwo fajar fotori last part of the night dernier quart d'heure de la nuit parce que la la journée fait 24 heures donc quand tu dors 8 heures de temps tu perds 30% de ta journée donc nelaw 8 heures de temps c'est interdit par Allah da ngay nekk tuuti nelaw ci Là, pour sa life après un break pour faire une sieste tu n'as pas besoin de 10 heures de temps hein. moi je donne mon exemple personnel je fais une sieste de 10 minutes 10 minutes strong 22 heures après je jóg nekkaat beneen Je suis énergie positive mais nit ñi savent pas. troisième fortune mondiale Ben Walid xam nga kooku bu ko neexoon tëdd nelaw moo a jaamu donc ñi amul dara nan dañuy nelaw damay nelaw ba 8h après nga bëgg ne da ngay ñaan yàlla sa borom mu n'ang. <laughs> yalla gëna sis kuy sis yalla du seddoo mais boy jéem ñëw ci mom day daw dugg sa biir yaram nga fess del ak yalla parce que ñun yalla nañu nous sommes le représentant d'Allah sur terre nous sommes le xalif d'Allah sur terre donc ku mu neex ne xalif nga man buma ma neexee ne xalif la <laughs> parce que yalla ko waxandu ah, du sama wax après fi ngay ñëw Sénégal Sénégal rek mo existe ay là. ti xalif la xalif la amul beneen dëkk nañu waxante deug est-ce que États-Unis amna na est-ce que Japon amna Khalif? just one question est-ce que Arabie Saoudite du Arabie Saoudite parce que man sama dama len xaw a quoi ci pet parce que dañuy fooye suñu diine quoi ay boîte de nuit halal te kenn du ci wax la umma kenn du ci wax Hein? tout autour de la Kaaba là hein, il se passe des choses bizarres mais personne n'en parle mais Afrique euh, Diop Afrique dañuy nelaw gisoo dëkk bi nu mu calmé ah ils dorment bëgguñu yeewu boo yeewoo nii di wax sax tu déranges mais ñu ngi commencé naan non non ba waa ji li muy wax muy dafa dafa leer ko xam nga dof bi ndeysaan man du ma leen woy dof I love that peoples because they had something strong which people do never know

Non, il peut être convoqué parce qu'il dérange, il a une puissance financière quoi. Mais bon, bul vous dara comme on dit ils ils sont lugubres c'est-à-dire que dañu est lié après me def man non, I don't know parce que nous de mais ça c'est privé c'est voilà

moi ma non t'inquiète pas ma ne ko non dama lay wax de parce que dañuy fo quoi c'est une presse où qui vit de hmm, de système sont pressés yëpp Covid la ñuy wax bés bu Covid la ñuy wax amul parce que dañ leen hmm, dañ leen injecté xaalis bëri pour ñu wax ci loolu alors une information yëpp black out donc ñun li ñuy def nous sommes des journalistes qui sont pas payés <laughs> mais ay journalistes yu yàlla lañu quoi <laughs> moo fay quoi. <laughs> Ah non, en fait, je, tu sais, hein, quand, tu donnes, quand tu donnes un exemple, tu commences par soi. Perfection. Pour moi, dans suis nangolo, je suis bagnol de Hadi. Et nul n'est parfait, non, parce que Yalla la le ba pas Et nul n'est parfait, ça waxu Sénégal nul n'est parfait. Waxu nit la quoi. On est parfait bien sûr parce qu'on est on, est membre d'Allah. Il nous interdit et il nous recommande. Donc on est parfait. Celui qui n'est parfait, c'est pour moi, c'est les c'est les animaux hein, parce qu'ils ne sont pas dotés d'intelligence. Mais l'homme est parfait. L'homme devrait faire de sorte qu'il devrait tendre vers la perfection. dañu am y am yorente bi alayhi salaatu salam. donc amuñu droit erreur erreurs. <laughs> Ah, sunu mag yu baax yi ñu fiy il faut faire fi benn erreur nañu waxante dëgg ñoom Mam Bamba ñoom malik. leen ci dara ci dara ça c'est la perfection donc ci loolu la ñu attendre. tendre donc man damay damay bañ lii Et ay n'est parfait on est parfait mais on refuse d'être parfait voilà sous prétexte que <laughs> ay nit lañu quoi nit moy def erreur dañoo erreur dañu bo bo bo bo insister ci erreur bi moy je m'en taille ma mathéisme lay nek quoi je m'en foutisme mais le repenti moy nga def baña a à ce que je sache mais quand tu répètes tes erreurs c'est c'est <laughs> c'est plus des erreurs Waouh! Hein. waaw Ils sont tous convoqués. Nous, pas. Ils sont en train de ternir l'image de la religion musulmane. C'est bien eux. motax duñu ak cest most of them c'est des iraniens hein? ak malaisiens c'est pas des saudites ah. guerre

les pédophiles là xam nga dañ japp ni que ba pare pas François limu def dafa grave naan ay goûter à la chair fraîche nit ñi tek nopi di def ni c'est pas un chrétien c'est un franc-maçon bu bonne la moo mu ngi sous résidence surveillée est-ce que jàppuñu ko. Job, il faut rek tu me confirmes cela comme yaay def navette bi fofu, yaay dem Milan di qui il faut nga confirmer ko Mo xam sa xeex bi il faut que ma am information diko ko wax ñi ñu xam Pape François du chrétien franc bu bonne la Ñom ñoo nek Saint-Siège dem mën naa leen seen ambassade Bir Italie lañ nekk donc c'est le deep state là le gouvernement profond là Ken xamu leen kenn mooy président Aduna Ken kenn ko Trump kooku la nekk di xeexal ak Poutine ñaanal leen Trump bu parce que mon ngi pour l'humanité <laughs> Bon pour ku ci nekk am nga droit ñaan kii jóge fi ah. mais bien sûr Thomas Ousmane <laughs> ils sont bien parce que c'était des c'était les c'était les sahaba mais comme dafa ben, ben,

xoolal toog fii def du bien mu est-ce que sax tollawul ak dem foofu di kii c'est-à-dire que ki war a dem màq xam nga am na ko bind keroog ne ña waroon dem màq demu leen jël leen seen xaalis ngeen jox ko nit ñi les gens en ont besoin c'est-à-dire que été euh, toppatoo sa moroomu jullit moo ëpp ëpp doole dem defi loolu waaw le deep state là waaw xam nga boo comprendre le deep state là ci ngay xool di ci ngay dox matin midi soir voilà depuis deux mois merci Pape merci Diop de la depuis deux mois le pape François est sous résidence surveillée depuis ba mu alerte boobu muy wax naan ay à la chair fraîche et personne ne doit. Quel du ci wax Maintenant, goûté à la chair fraîche a une exception góor comme jigéen une exception. après personne n'en parle parce que là ils sont très limités après on te dit wanewuñ ko TV5 TV5 ci biir France 24 ci biir ils ont les médias. Wow, wow, wow, dal. Salam Si tu dal. war xam parce que vous xamee ki nga doon rek ci te la bul def lii rek laa xam nga la dafa set yàlla dafa pur interdit fornication Moi, nga am un am am dem def adultère tu es considéré comme med waaw Trump moo dama koy fan parce qu'il est en train de se battre hein.

l'humanité Trump représente Allah bien qu'il n'est pas musulman parce que les muy n'est pas na góor jigéen warul am ci aduna warul am ci aduna te bu toogee dina len bañu ne que la ah ouais mais tu sais tu sais tu sais même ce qu'on est en train d'utiliser là c'est un instrument de le Facebook là Fatia lañ jël depp ko en 13 branches même la marque def ni mais man ko def ko mu nekk ci véhiculer di l'information, information hein? il faut voter pour Trump Trump est en train de se battre pour l'humanité entière moom ak Poutine mon cousin là. Mon Poutine cousin là ko tuddee on a un conseil diplomatique <laughs> day retaan naxee non comment tu peux être notre cousin j'ai dit oui parce que par alors hein? quoi

<laughs> Poutine non Poutine tam mu ngi xeex de Yama ma sixoon yaa ma sixoon xaw ma naka nga quoi cest dire que day dugg pour dire information mais il se bat pour l'humanité ah italiens yi moom des dañ jaay seen life day spoil their life Ils ont leen koy jaral quoi Job, da nga war a commencer def ay live comme ni may def parce que tu nga am information de taille quoi da nga war a commencer def live comme man. <laughs> <laughs> Diop Diop dafa grave quoi suivez le regard de Diop Dollar il donne des informations du grave donne ko en fait je l'adore parce que il confirme tout ce que je suis en train de véhiculer là voilà Oui non non quoi de toute façon comme dimanche là, Sénégal est dañuy nelaw il faut que dem nelawaat tuuti mais même da ngay sa borom après dem nga <coughs> parce que Trump il les dérange Khadija. Trump est en train de dévoiler ce qu'ils sont en train de faire Trump est là pour l'humanité entière Trump est là pour sauver la face du monde Trump est là pour donner de la valeur à à l'humanité donc il dérange. Il est en train de dévoiler leur. leur. leur. leur. leur. leur maanaam seen ay sen ay xawma sax na la ko tuddee tellement lu bon la def c'est vrai hein? mais ñi comprendre la lañuy japp ne dañ koy jaboliser. pourtant deug rek la yoo xam nga Trump li tax mu graw dafa am xaalis avant mu nek président donc depuis 30 ans patron la donc mu même boo koy jox ay directive, directives day jékki-jékki jikko patron bi dab ko quoi parce que mosuñu ko jox ordre donc mais il dañ la jox ordre États-Unis les sénateurs dañu am doole foofu dañ la ne arrêté li def seen constitution non la des foofu président bi amul doole dafa patron dafa patron contrairement à fils de, population bi Nous sa patron mais ci constitution da nga dëpp affaire nan naan naan yaay patron waxoo leen dëgg quoi Macky Sall nous sommes sa patron man je fais partie de tes patrons tu es mon employé voilà pourquoi je te parle tous les jours bon dañ koy ñaanal mu gindee ko mais tam bu bëggul gindee ko affaire am la il subira les conséquences Non, de Dieu il va subir les conséquences hein. non <laughs> médias yi di xeex médias yi di xeex médias yi jaruñu sax déglu Diop médias yi jaruñu sax déglu parce que du ñu wax ay ay contre vérité rek la ñuy wax man du ma leen déglu du ma leen seetaan loolu laay wax suma yaay sax lu manako bayil radio yi ngay déglu buñ la wax dëgg del del déglu au moins samay live au moins parce que man na la informer <laughs> te mu ñëw elle est très informée nak euh, yo daaw de li nak mer bayima mère radio ma noppalul rajo yi waxuñu dara du li dëgg duñ ñu wax dara lu li da ngay san comme amuñu benen liggéey dañuy tok di déglu mom au moins amna chance du déglu ay way mais alcorane lay déglu peut ak ak information yi nga xamne dañ koy relayer dara du ci dëgg <clears throat> damaa bëgg nag arrestation yi fii nii commencé waaw voilà Rabi wax nga dëgg mbindaan bu fëkk ndab la mbindaan bu rakkaaju la bu fuy la mbindaan buy daw lay oto un milliard dem jënd hélicoptère bu jar ay milliards est-ce que xam ngeen hélicoptère bi daw loolu la njëkk a jënd comme comme mais c'est un rêveur quoi cest que hélicoptère Trump bu Macky Sall moo gën a récent israéliens yi ko jaay parce que ñu ñooy gérer sécurité intelligente du palais xamna lu bari ci dëkk bi de <laughs> baax na daal mu may xaw moytu parce que dama xam lu bari xamul fa laay jëlee sama information man Sénégal àdduna la dëkk. dafa tok israéliens yi teg ko pression mu dem commander sur le dos du Sénégal dem commander hélicoptère bu weex tal boobu loon moo récent bu bu bu bu Trump même génération mais dernière génération bi le commander donc auto bi bimu ko jëndee daf ko jaarale Belgique pour dem defar blindage bi donc Macky Sall la xam nañ lu bëri c'est que moo nga wara moytu quoi moytul boy yi di nek di wax sunu intelligence bu weesu ay nek di saaga quoi tappale madame Mbaye bien alhamdoulillah. c'est c'est c'est n'importe quoi amal mindaan sax bu am classe bëgg lu baax c'est normal on te le concède mais bul jéggi sa sa ànd quoi joxal ni ñi seen cër say patron da nga leen war a jox cër ah waaw baadoo la ba pare xam nga non média yëpp sans exception man moo tax du ma leen lire man bàyyi naa jënd journal yàgg na une fois j'étais avec ma fille dans la voiture mu ne papa doo jënd journal j'ai dit non du ma jënd journal mu ne lu tax ma ne ko du ma leen lire du ma leen li ci graaw man du ma lire journal Sénégal du ma leen déglu du ma seen dara intéressé wu ma déjà matière bi sax Euh, euh, c'est non pas un débat ça troisième mandat il n'y aura pas de troisième mandat ce n'est même pas à discuter Beaucoup de gens demandent man sama daaw sama mandat, mandat, le parce que les ko na mais n'y aussi mais troisième mandat il n'a qu'à demander à Blaïwad. on s'est battu hein <laughs> dévolution monarchique mais xoolal ku nekk am nga droit aspirer de am ay ambition présidentielle Amourba, il n'est pas bu ko neexee nekk président parce que ni une formation diplomatique xam nga dem na gérer finance inspecteur u impôt la xam après dem finance Hein? après jóge fa dem affaires étrangères mu ngi jànga ah, mu ci training bi mu ci cursus bi bu ko non am droit présenté wu bu ko neexee buñ ko interdit mais na def lii Sénégalais yi bëgg voilà yow mii Fall am nga droit présenté wu bu la neexee man mi Daouda Diallo bu ma sama condition financière permettre dinaa présenté wu parce que je parle pour mon pays xam naa li ñuy jàng yëpp xam naa ko te def ma seen jàng yu compliqué yooyu jaar université di gën a aboutir sa bopp njàng weesul xam comme mbool boole gis nga ni ñuy dundee te pourtant dafa ñu étude ba pare cas d'école la ñu américain yi dañuy jàng ni bol bol yi dundee seen seen université yooyu donc arrêtez quoi plus tu as des diplômes plus tu es borné plus tu deviens corrupteur ak sàcc les c'est les gens qui ont fait les écoles les hein. grandes écoles Après, après ont fait le détournement alors ba ñu voilà dit-on mooy kii gëm yàlla qui a interdit qui a tere def am éthique ak déontologie am morale voilà di ak parce que xam sais ne benen leçon a nettali jour alaaxira looloo tax mu encore mais il faut moins intéresser là, pour ne nekk di ci dox ak di ci wax donc ñu ngi toog naan ay ku dàq lii ku dàq laa di jaxase def hein, conscientisation bi ci ci ci ci ci ci social network bi di leen jaxasse man sama force moy yalla la andal ak Sénégal te ko and ak yalla Sénégal nga andal donc may xex quoi may xex pour toute l'humanité entière amul sans distinction raciale ni ethnique ni religieuse voilà ku nekk la nga doon loolu la yàlla na ma nga doon point ba man xëccuma kenn pour nga doon lii wala pour nga ne mais am naa droit dina la eh, moytul yeewul waaw les médias sont en de faire leur <laughs> campagne la campagne bi ñuy xeexe pour yeete ñoom tamit campagne boobu la ñuy xeexe pour nit ñi gën a nelaw ñaar ëxlu moo fi am ak loolu seytaan moom lay mujjee tudd parce que tekkiwul dara mais yàllaa fi nekk léegi nag comme dafa am ñaari ngëb yi dem fële xiil ak yi dem paradise léegi nag da ngay jéem a fexe même bu fekkee fële nga jóge ngay jëm a fexe bokk si ñi dem paradise mais bu la intéressé wul doo ci dox ci la lay yóbbu il ngay dox cest à que la vie elle est illustrative ku ci nekk fa nga jëm ci loolu ngay nekk di dox c'est aussi simple voilà terminaison wu live bi ku ci nekk fa ngay njëkk fa ngay mujjee ci loolu ngay nekk di dox ni waaw wax nag Sénégal yàlla nga na parce que yàlla Sénégal moo ko moom yàlla moo ñu moom waaw yàlla moo ñu moom moo tax ñu xeex mais bien sûr <laughs> Diouf Jogobaay tay tay mom da nga tar rek quoi xanaa sa dëkk dafa nekk di taw Diouf Jogobaay tey da nga bidanti quoi démb gars yi dañu bidanti mais ak tey man xam nga du ma bidanti c'est ça ma force quoi du bidanti moo tax Macky Sall mënuloo ma dara I don't about him ak ñu mu àndal ñëpp faale ma leen sax ay tappaleur lañu man heure bi may yow ci lañuy ci la nelaw ñoom da ngay teel tëdd pour teel a jóg nga fii pour te dire que dañu nekk di nax nit ñi I'm doing good. I'm doing very, very, very good. Mashallah, I'm doing well. Trying my best. Still fighting for humanity, as I say always. def na woon nañ leen naan ay guddi pour nelaw la guddi guddi pour nelaw la <laughs> am na heure boo xam ne da nga war a jóg waaw Vatican kenn dafa dugg période bi <laughs> ña ngay def ña ngay jaamu seen Lucifer ak Baphomet dafa yéeme quoi Le petit obscurantisme Le petit obscurantisme Diop dès que tu commences à faire lives, lives, j'aimerais bien que tu commences à faire des lives là tu parles de ce qui se passe là-bas as le droit bien, ah. parce que je nga des def live qui y est, dans la lii yëg laa yëg tu as le système am nga droit def wala xéne da nga da nga da nga nekul américain comme ya, man da nga nekul guerrier comme ya, man man xam nga dama sës man ngeen la américain jël nañ or bi ak batoy day <laughs> kon di torox nañu <laughs> non le pape Dego il est sous résidence surveillée depuis deux mois Khadijatou mais duñ ko wax ah ok you not sleeping yet manam tëdd ko quoi uh, you know in that area you yeah i am the time difference for three hours Like nag man daf time difference bi you know I was victim of of fucking Man, the new dóor quoi on a acheté de la marchandise depuis la Thaïlande donc time difference boobu may waxtaan ak ñoom moo ma increase ci lii moo tax sama nelaw jeex jeex quoi pourtant nit a ngi toog fii tok fi jënd jënd lu bëri kenn ko dóor mais ñooñu dañ ñu dóor quoi max sama benn grand ñu lay jox ay kayit yu authentique faux vrai authentique pour ngeen xam Bangkok Thaïlande mooy capitale d'or ci aduna maanaam escroquerie mondial seen capitale Bangkok lañ nekk tout ce qui est vrai faux fa lañ koy def rek faites très attention ça je vous l'apprends parce que xamu leen ko quoi <laughs> mais il faut il faut il faut essayer hein xam nga boo amee mooy développement personnel ku rek da ko speech di wax te doo lire moo tax man Macky fois man du ma de temps parce que knowledge loolu strong full la moyen ak lecture bu bien sûr parce que quand tu duggee fii génn fii wax li ngay concordance par rapport la réalité ah, ok time difference dafa bëri bro it's like 12 hours new about dafa bëri ya you in the daytime okay gis nga yàlla nu mu graawé ñu la ñu ngi ci 16h30 mais mu man maa ngi Sénégal ñu ngi ci bon sûrement montre xaaral comme defuma ñu ngi 7h30 ñu ngi 7h30 xoolal différence boobu Le yàlla dafa garaaw moo tax ngeen bañ ko jaamu aussi secondes bu nekk sunu borom day sàq soixante am mu jëlaat soixante am sept secondes yi ni muy créé merci mon grand berger <laughs> tu sais on devrait apprendre à dire la vérité telle qu'elle cest que dëgg du tourner quoi Daouda laa tudd sant Diallo je suis de taille moyenne petit mais bëri affaire parce que voilà quoi comme comme naa ne bu armée le général là, nekk quoi naa dem jàng ba nekk général xam nga général nomination là. sama benn grand nommé le benn nommé général du temps de Wade mu ko président président damaa bëgg qui nga nommé ko général quelque temps après il a il fut t'as vu neuf heures de différence yeah nine time nine hours donc léegi man bi may séq ak waa Bangkok y avait 12 hours difference time difference donc bu ñu nekkee ci guddi man maa ngi bu ñu nekkee ci bëccëg maa ci guddi bu ñu ci te pourtant maa ngi doon communiquer ak ñoom après ñu doon ñu quoi ce fut un choc ah après nga dem dig déposer sa plainte hmm. après naan la ay non liéeg la moo tax moo tax yenn yi naxaata la c'est du tappale man sax enquête yi mu ci doon def ma toog fii sama téléphone di def samay enquête ba gis seen koñ mais bon ci adresse boobu noonu c'est du faux. fii dem bu wàcc Angleterre dem xool li ngay xool ci Gold Street mooy seen caméra yi nii pour loolu la. wax naa ko sama benn grand <laughs> c'est un homme de tenue quoi ma ne ko da nga sol tenue rek di enquête mais man soluma tenue te li may enquêté <laughs> moo gën a grave sax sa parce que man je suis pas doté de tes outils quoi <laughs> man outil bi may yor du état ma ma ko jox. <laughs> donc oui non quoi mais bon je pense que j'ai assez papoté hein on a que de life nañu yàlla jàmmal may ñu sutura may ñu ndam li ñu jotti mu pour mu toog pour Sénégal mandat mais bu gënul rek Bill Gates mom nako yalla yàlla jël teg ko ci wétam xeetu ñan la dé la quoi mais do ko wax carrément Bill Gates bu déwé rek life bi changé parce que mo nek ci à l'origine de tout ça mom Jeff Bezos ak George yeneen pay yi kenn ki dee il y a trois ans David le tudd pourtant comme mom yow suba tel di wax di saaga ñi n'importe quoi parce que yàlla jàmmal. y a des gens qui passent là qui insultent sans raison. booy savoir vivre. peut bi nga yeewu di saaga nii. nañu yàlla jàmmal mais ñëpp lu ñu jëndee xar. <laughs> parce que xar yi moo jaaxal sama benn si dama koy naan mu jëndaguma xar ah j'ai dit waaye di nga am xar jarul ci doy. eh chaque année pression moo fi nekk mais ñëppay am xar nee nañ dinañ ubbi frontière donc y' a plus de quoi s'inquiéter ñëpp dinañ am xar jarul tiit di ragal ku ci nekk sa xar yàlla wax na ko di nga ko rey waaw man dama ko ñaanal no dé dem jahanaba direct parce que limu ray ci doomu adam kenn xamul lu mu toll Bill Gates ak ku ànd ak moom ak ku ko yaakaar dama may dé ñu wax ay David job ak ay David Ndiaye xawma ay nga xam templier bu mag la tok fi di promouvoir Gavi ak Intra Health ah ñoom ñëpp nañu dee dem de jaxana ba parce que dañu rey doomu aadama ku nar a rey doomu aadama na nga dee dem jiituñu safara man sax xëy na bu ma dee safara laa jëm aadul maa ngi safara tolluwaay la rek ah nature la comme ni safara àjjana nekk c'est-à-dire que c'est deux c'est deux éléments différents <laughs> le feu et <laughs> le froid donc amul leneen boo defee li tax nga war a dem dans le feu kay war a dem dans le tu assumes xam nga comme maanaam. Euh, nous papa joxna mu lek wala joxna soxna mu amul ci applaudir c'est ton devoir Makissal, tu devrais faire en sorte que sénégalais yi nekk ci jàmm buñu ñu ci do ci long of yo. <laughs> Mende sa nous, en train de se passer autour de ta famille. Hmm? your wife lose control, become mental, your daughter, your son is not feeling well. So probably the pom pom. Hmm? What's what's going on? C'est compliqué. Man, ligne jam, bobo jam jam, man. This is my advice to you. Bobo It just remind. So, ñun ñëpp yendoo ak jàmm ak and may Allah bless of us. yàlla ñu yàlla suturaal may ndam suturaal ñu jàmmal ñu as I say always iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci lañu wéeru mooy buum bu wër na ñëpp ci yàlla ku wéeru ci yàlla amul dara looy scare yeah nothing to scare and nobody to scare also we are strong like rock xam nga acier nu mu dëgëree nga xam inoxydable est que gënu ma dëgër sax acier mais je suis très sensible <laughs> grave, je suis très sensible c'est ça c'est Allah quoi donc I love everybody as I love myself thank you